ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi di sant suñu ñaari waajur di sant sama sëriñ sëriñ Basiru Mbàkke borom bég bég taat bi di ko ñaanal jàmm ak gudd fan gu bare bëri bëri ci noonu nag nee naa damay am contentement janoog yéen mbégte bi nag mooy di leen indi li gën a fës si boobu xibaar yi damay nuyu ñi ma feggool Mbaye Babacar ak Assane ñu daal di ñëw jukkil leen li gën a fës Mbaye nuyu naa la jërëjëf Ndeye Mbacke fay naa la wante santoo ñu la jàppale ci combat bi boo sante yàlla julli ci yonent bi sangu sang yi da ngay da ngay gërëm ñi la jàppale ci combat bi ah? waaw sant si sëriñ da ngay gërëm da ngay sant ñi la jàppale ci combat bi mbégte ak content contentement la ñuy am saa su ne heure bu ñu jàkkaarlook yéen ngir fas yéene leen a jukkil li gën a fës ci atu yëngkaay yi nga xamante ne bii ci làmb rek la ñuy bind. Assane Waala nuyu naa la. Ndeye Mbacke la di nuyu May Babacar di nuyu internet Leewtoo TV man mbégte jàkkaarloo ak ñoom pour indi leen gën a fës ci yéen 28 avril 2021 ci Leewtoo point net la ñuy dooree ak xibaaru làmb lam cee xam ne nag mooy Fallou njaay mi jiital Ndiaye production mu mer ba futu di dénoncer li nga xam ne ne mooy favoritisme bi nee na caution ak conditions yi teg du dara dul ay par parloo Mbaye Babacar. Fallou Ndiaye moo yëkkati yooyu la kàddu ci Leewtoo point net la waxee loolu xam nga ne démb nag euh, CNG ak ministre ak ministre bi dañ doon daje ak ñi nga xamante ne bi ñooy ñooy promoteurs yi wante Fallou Ndiaye ba mu génnee la mu xam ne mooy CNG day fa day day day day nu ñu koy waxee day def kumba am ndey ak kumba amul ndey ci biir promoteurs yi ba tax na yëkkati na kàddu kàddoom ñaawlu loolu Assane. dëgg la Mbaye Babacar si wàllum date yi la bëgg wax loo buy wax loolu nee na am na promoteur yoo xam ne nii depuis saison passée dañoo amoon ay date mais pour le moment mën nañu régulariser seen combat alors que am na promoteur yoo xam ne nii récemment rek lañ tëgg combat mais régulariser nañ ko looloo tax nag Fallou Ndiaye bi mu génnee ci janoog bi mu doon am ak ministre bi mu ne CNG daal day def ay farfarloo loolu war nañ ko bàyyi ndax warul du jëmale làmb kanam nee na daal nañ xool ñi nga xam ne nii ñoom ñoo njëkk am date wala ñoom ñoo njëkk njëkk tëgg combat ñu jox leen date bu tëggee ba pare ñeneen ñi doog am date. loolu leer na suñu làmb ba mu xëyee ci xëtam bu njëkk plusieurs combats régularisés au CNG hier Balla Gaye numéro 2 le BG2 de Guédiawaye B52 de Mbour di Bombardier régulariser nañ ko combat ba nag ma ngay taxaw le 31 juillet incha allah door dooraat lay doon wala dóor fayu mbay Babacar dina leer yi. door dóoraat lay doon wala dóor fayu loolu dina leer incha allah ñoom ñaar bu arbitre bi soufflé ba génn seen diggante wante ni ma koy waxee upp dafa baax ci laax bu tàng ndax temps yi yëpp amateurs yi ñu ngi ñaxtu naan combat yi bëri na mais ba léegi euh, xamaguñu mbër yi ban date la ñuy bëri mu mel ni nag démb Assane. Euh, loolu le am na combat yi nga xamante ne bii euh, xam nañu seeni date mu mën cee bokk mu mën cee bokk Bombardier ak Balla Gaye loolu war a am le 31 juillet incha allah. dëgg la Mbaye Babacar démb njëkkante mën nañ am ne mën nañ wax ne moom moo amoon ci CNG ndax euh, promoteur yu bëri dem nañ foofu ci CNG déposer seen caution 1 million mais également jëlaale ay date ñu mën ci jàpp Gaston Mbengue mi nga xam ne nii moom moo tëgg combat bi war a dox ci diggante Balla Gaye 2 ak Bombardier combat boobu nag mi ngi ko nara a amal le 31 euh, juillet jàpp na également date pour combat Sa Thiès ak Moussa Ndoye combat boobu mi ngi ko prévoir le 26 juin après Gaston Mbengue Abdoulaye Dieye Sène également am na datu combat bi mu nga xam ne nii tëgg na ko te mu war a dox ci diggante Gris 2 ak Abdou Diouf combat boobu mi ngi ko prévoir le 4 euh, juillet Khadim samba également am na date euh, ci combat bi nga xam ne nii moo war a dox ci diggante ñaxi jëriñu ak Kewal ak euh, Sanderep ak capitaine Dina combat yëpp mu ngi ko prévoir le 7 août. incha allah Mbaye Babacar dara jaaxalul la. mooy fa promoteur yee mer di rasu ne duñ ko def tey duñ ko def ëllëg. Mm-hmm. duñ fay caution ba. Mm-hmm. yeneen promoteur xëy daal di ay combat waaw kooku mën nañ cee jàpp ko mel ni moo géet boroom na làmp yi tàkk borom États-Unis d'Amérique le jeune milliardaire bi nga xamante ne bii moo doon woo mbër yi fële ci États-Unis di leen invité di leen may xaalis bu bari léegi nag. dafa jël xaalisam dugal ko ci làmb fas ne investir ci làmb ji di tëgg ay combat gis nañ démb ak barki démb mu taxawal ay combat Assane tey mu indiwaat beneen combat bu neex diggante Lac ak ki nga xamante ne bii mooy ama neex. dëgg la Mbaye Babacar barki démb la taxawal combat bi war a ci diggante Jordan ak euh, doomu dàngu démb mu taxawal Baye Mandione ak euh, Zarko tey nag ñu informé ñu ne Modou Gueye Modou Gueye taxawal na combat bi war a dox ci diggante Lac Rose ak ama neex. combat bi nag combat revanche la ndax Amaneex ak Lac Rose daje woon nañ le 25 juin 2012 boobu nag neex moom moo ko daane woon ci recours daf ko combat bi dafa pare après recours la la ko daane ñu fàttali ne Amaneex dernier combat mi ngi doon dox ci diggante Boy Bawal bu Olympique de Ngor moom moo ko daanoon le 1er janvier 2018 Lac Rose moom ci blessure la jóge gën na bëri mais blessure bu grave la amoon ci jeune bi maintenant wér na. Modou Gueye tëgg ak combat kii moom ak ama neex ñu xool nag combat bi fan lay mujjee. Mhm. ca noonu nag Bira Sène président du CNG lam xam ne ci journal nag mooy il faut que Pape Abdou Fall revoie sa copie ginnaaw ba ki jiitee promoteur yi di Pape Abdou Fall di ko dal ci kawam di ko di ko attaqué fan yii yëpp daal di mer ba fukk futtu ndax li nga xam te ne mooy caution yam teg kii nag di président CNG Mbaye Babacar xëy na daal di koy tontu. président CNG xëy na tey yëkkati kàddoom ci suñu làmb gannaaw ba ko Pa Abdou Fall tàkkle tàkkle yu metti barki démb ne ko yéen waa seen da ngeen a lajj ci seen mission tey nag Bira Sène mi jiite CNG dafa yëkkati kàddoom ne Pa Abdou Fall war naa xoolaat bu baax a ni muy waxee façon de parler daal war na cee bàyyi xel Assane. dëgg la Mbaye Babacar semaine bi passée CNG dafa def benn circulaire adressé ko promoteurs yi circulaire boobu nag dafa am benn disposition bu ci nekk moo naam maanaam benn caution bi nga xam ne nii caution 1 million la euh, promoteur yi war ko déposé bu ñu bëggee am date loolu nag la moo naxari pa Abdou Fall ba mu ci presse bi wax ne caution boobu ñoom duñ ko def te CNG da koo def sans mu yëgal leen loolu nag la Bira Sène xëy weddi tey nee ne caution boobu existé na depuis dix deux mille dix neuf du ñoom ñoo ko indi ci euh, làmb ji nee ne caution boobu également euh, contrat bi di euh, contrat de concession bi nekk na ci te ci article 4 bi daf ne bu dee da nga def benn da nga yóbbu sa làmb ji benn stade boo xam ne nii am na plus de quinze millions da ngay déposer benn caution de deux millions bu dee nag stade bi quinze millions de place rek lay def caution bi un million lay nekk kon daal mën nañ jàpp ne lu fi Bira seen fekk la dafa delloowaat buum ca booy boy ga Ndeye Mbacke. ca doon nag problème de date caution impact du Covid 19 Matar Ba. renvoie les promoteurs au CNG lam leen xamal la mooy nañ delluwaat ca CNG waxtaan seen biir ndax yére yu tilim yi Mbaye Babacar ci biir kër gi lañ koy fóotee yére yu tilim yi ci biir kër gi lañ koy fóotee Ndeye Mbacke wax nga dëgg ministre Matar Ba moo xamal promoteur yi ak ñii di waa CNG moo xamal promoteur yi man ngeen a dellu ca CNG ngir waxtaan ngir mën a déggoo lépp ngir lu mën a jëmale làmb kanam Assane dëgg la Mbaye Babacar Matar Ba démb waa CNG bi mu paree teg ci promoteurs yi lim ni wax nag ñaari camp yëpp ne na problème mu caution yi problème mu aide Covid bi ak euh, tet yëpp ñoom CNG ak promoteurs yi nan toog ci benn table régler seen problème ndax euh, mooy intérêt lamb ne na daal bu ñu toogee ci benn table waxtaanee seen problème yi dina ñàkkul ñu am solution yoo xam ne nii intérêt lamb lay nekk. Mhm. ca loolu nag Cheikh Fall ancien membre du CNG la mu xam ne ci journal nag mooy kii di Falaye Balé moo. dàq bëre foofu doom ji di Ama Baldé Mbaye Babacar. Cheikh Fall bokkoon ci CNG bi euh, moom moo yëgle yooyu le euh, xibaar nee na bu ñu buy xool Falaye buy xool Falaye Baldé euh, ni mu doon bëree wuute na ak ni nga xamante ne bii noonu la Ama Baldé di bëree ba tax na li mu mën a jàpp mooy. fallaay moo dàq bëre doom ji newul nag Ama mënul bëre mais nee na moo dàq bëre doom ji loolu Assane nekk soññee ci ki nga xamante ne bii moom mooy Ama wante yemul foofu ndax nee na buy xool mbër mi di euh, euh, Modou Lo xale bi nekk Parcelles Assainies nee na daf koy fàttali Ama Diabou Mbengue bu yéen. dëgg la May Babacar Cheikh Fall nekkoon ci ay jamono ci CNG bi léegi nekkatu fa lundi bi passé nag dafa dem seeti waa euh, suñu làmb. ba mu demee mu séq ñoom waxtaan bu yaato yaatu ci waxtaan boobu nag si la waxee kàddu yi nee na Falaye Baldé mi nga xam ne ni moom mooy bàyyi ci Ama Baldé moom moo dàqoon bëre bu baax doomam jii di Ama Baldé waaye loolu nag comme ni nga ko waxee terewul mu ne Ama Baldé mën na bëre wax na également ci Modou Lo bu gisee Modou Lo confiance bi muy dégagé gabari bi mu am ak euh, xeex bi mu indi ci làmb ji da koy fàttali mbër mii bi nga xam ne ni moom moo tuddoon ama jaabu mbeng bu yeen wax na ci Balla Gaye Balla gay nee ne mbër mu généré la mbër mu technique la waaye moom itam bàyyam moom moo ko daaxoon bëre mhm. loolu leer na ci loolu nag acteur làmb ya jugoon ngir defar yàqu-yàqu téeb ya xale yàqoon ci arène nationale ba kii di Matar Ba ministre bi nangu na leen ko Mbaye Babacar te di leen di félicité bu baax a baax. ñi fas yéene defar saisi dammoon foofu yàqu woon foofu ci arène nationale ñooy waa ARELS. Matar Ba mi nga xamante ne bii mooy jëwriñ ji yor wàllu tàggat yaram ci biir réew mi nag Assane rafetlu na lool nga xamante ne bii acteur làmb yi fa yéene nañ koo def ngir defaraat yàqu-yàqu yooyu la. dëgg la mooy Babacar ARELS moom mooy euh, association des responsables des équipes de lutte euh, du Sénégal moom nag Malick ñi ngi moom moo ko jiite semaine bi passée Malick ñi ngi dafa génn na ñoom jël nañ engagement euh, réparer yàqu-yàqu yi amoon ci arène national bi yëpp démb nag ba waa CNG demee jàkkaarloog Matar Ba yeggee nañ ko xibaar boobu Matar ba nag bi mu ko xamee daf ci rafet daf ko rafetlu ba pare di encouragé ñii di waa ARELS ñu continuer seen euh, décision boobu ñu jël di leen ci encouragé bu baax a baax a baax. ñi ko defoon tamit ñu wax leen ñu bañ koo defati am na ci solo bu baax a baax. Ah, duñ ko defati di leen ci di ci jëlee moom ku ci yeewul ku ne. dootoo ci yeewaat te noonu nag Jordan signe son retour ginnaaw ba mu amee combat ak nga xamante ne ni mooy dongu dangu te Moodgate Events daal di koy taxawal Mbaye Babacar. Moodgate Events moom moo taxawal boobule combat. borom na lamp yi tàkk fi mu nii nag moom mi ngi taal lamp yi moom Assane dëgg la yaa ngi leer nañ andiwaat na beneen combat bu neex di dox ci diggante Jordan ak doomu daan dëgg la Mbaye Ba waxar ginnaaw bi mu taxawee temps yëpp muy chaque jour mu génnee benn combat tey moom euh, combat euh, Jordan ak euh, kii di ama neex moom la ñu présenté journal suñu lamb nag dafa ñëwaat ci Jordan nee na Jordan signe son retour ndax Jordan mu ngi gëj ci lamb ji depuis mille 2017 Reug Reug moo ko daane woon le 22 mars mais nag dafa quitté woon dafa nekkoon ci écurie Tay Shinger jógee fa dem ci sàkku xam dem am fa première défaite euh, léegi mu amaat beneen victoire euh, léegi journal suñu laam ne euh, combat bi di war a dox ci diggante ama ama neex daal wala jor wala doomu daangu waru ko perte benn yoon ndax warul signé ñaari défaite ci écurie bi nga xam ne nii moom la nekk muy xam sa cosaan. Mhm. Jordan doomu dàngu la incha allah. ayca samedi. cinq juin 2021 fekk ci arène nationale ñi mën nar a sëgg bëre nag mooy Nandi Fall ak nga xam ne mooy Dame Sène Mbaye Babacar Nandi Fall nga xamante ne bii Assane na te yaakaar naa mën nañoo jàpp tamit xam nañu kañ la ñuy bëri dëgg la Mbaye Babacar Habib Ferrat moom moo tëgg combat boobu xam naan kañ la ñuy bëri ñi ngi war a bëri le 5 juin euh, boobu la Habib Ferrat jàpp pour mën a doxal combat boobu war dox ci diggante Nandi Fall ak Dame Sène waaye jour boobu du combat bee Dame Sène ak Nandi Fall rek mooy am ndax prévoir ci également franc combat Baara Ndiaye bu Fass Ndakaaru ak Sokosim lu ji ñuul rek mooy Sokosim nee ne parewul pour bëre la cinq juin ndax peut-être physiquement pareegul looloo tax daal combat boobu euh, le jour ji mu nar a mu ngi noonu record nag lañ jëm CNG et promoteur reçu hier par le ministre Matar Ba raisonne les deux camps Mbaye Babacar. Matar sa ministre Matar Ba moom mi nga xam ne moom mooy jëruñ ji wàllu tàggat yaram ma ngay jéem a sotti ndox mu sedd ci coow li am diggante promoteur yi ak CNG Assane. dëgg la may Babacar gannaaw bi mu dajalee dalalee démb ñaari kan yëpp CNG ak promoteurs yi nee nañ daal ñoom ñaar ñu dem toog autour d'une table pour régler seen problème yi ndax ñoom ñaar ñëpp kenn mënul dem bàyyi sa morom ñoom ñoo séq làmb promoteurs yi mënuñu dem bàyyi CNG waaye CNG également ñoo yor réglement yi euh, di ko doxal donc ñaari camp yëpp war nañu euh, déggoo ci kàddu ba nga xam ne nii euh, làmb du yàqu. kon ni ñu koy waxee rek seen déggoo mooy suñu arrangement. waaw seen seen jubóo mooy avancement làmb. mu ngi noonu dama leen di jaajëfal bu baax ah Assane Wall kontaan ci yow lool Mbaye Babacar tam ngay tàggatoo wi. xanaa jaajëfal ñëpp di jaajëfal waa Njaareem sama dëkk di jaajëfal suñu mbokku internet yi nga xamante ne bii ñu ngi ñu doon topp ci euh, Leewtoo TV wante tey di jaajëfal sama xarit. balee di jaxara Kebe Cheikh Ahmed Tidiane Kebe boroom Kër masaar sama doomu ndey maa ngi koy ziar di ko ñaanal bu baax jàmm ak salaam di leen dig daje incha subaak jàmm jërëjëf Yacine Fall. Assane remercier di remercier équipe Leewtoo TV jiital ci Yacine Fall euh, yow remercier également waa Linguère di leen jox dig daje bu soo jàmm incha allah. yow Mbaye da bëgg a suufu de lu mu fa demee noonu. bàyyi ngeen suuf waay mu ngi noonu dama di jaajëfal bu baax di kontaan ci yéen lool lool lool di gërëm sama équipe technique bi Bilal kontaan naa ci yow Bamba. Ousmane Fall Mansour kontaan naa ci yéen trop damay sant nag di gërëm sama jigéen ju mën góor gi ah faama Adja fi sama yaay booy booy kontaan naa ci yow loolu ñu xuloo dina leen dara ci bureau bi mais sama gaay la ah Aïda sama séeréer bu ñaaw bi ah bu ñaawul bi rafet loolu car macha allah xese booy bi kontaan naa ci yow loolu matu plaignante bi bég naa ci yéen kebe jaxara la sama lonkoo la leen jox di daje ëllëg ci Leewtoo TV incha allah